jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam ku ne xam ne nag fi mu toll nii wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndaañ tàlli diggante tafaatin ak Boy Niang incha allah suba ñi ngi fii ci marché Sandaga seet si ñi nga xamante ne bii ñooy amateurs yi làmb yi wante ma ànd ak sama caméraman Umulaay yaayu maam Libaas nee naa ko yow sa maam moo randaloo woon géej ga moo na woon yaa max insi in jinni inni rasulullahi ilaykum Umulaay dugg ci biir gars yi xool supporter yi Tapha yi xool supporteru Boy Niang yi ñu wax ñu naka la ñu gisee combat bi ak naka la ñu gisee sëñ mbër champion ñu ngi lay ziar bu baax a baax. alhamdulilah. mbaa yaa ngi si jàmm. sant bu baax a baax. combat Tapha booy ñaa Niang suba la. waaw ah, suba la. Euh, looy wax noo gisee sa mbër. waaye sama mbër Tapha man aw ma leen la may tiit ci moom. nam ko daan defee rek. jàpp naj ba mu dëgër fëgg ci suuf. mais mais mais champion ngay bëreel Boy Niang borom curuxu curux waaw curuxu curux ñun ñoo gën a dox curuxu curux fop bu dee curuxu curux rek ñu la fekk baax waaw bu dee curuxu curux ñu la fekk baax amul leen lu ñuy tiit ci Boy Niang amul sax comme xalaat nii dem ay dem rek lii amu ci jàpp daan dem yow yaa nga Pikine ñii xalaatam xalaatam lay wax rek xalaatam rek lay wax ñoom pour ñoom Tapha Tine day ñëw taxañ booy bi déedéet du noon de mais est-ce que Tapha ëppul doole mu ëpp doole rek mu kii bu ñëwee day tëdd day jébalu dégguma day jébalu bëree sama biir kër sama biir néeg laay bëree. mais tafaa ba woon ak bii du benn. Tafa day dara Tafatin du dara. kaw kaw la booba bu muy bëree ne biir néegam booba la ragal biir néeg kenn lu ci bëree. ci làmb la ñuy bëree dinaa leen xaw a mais combat bi wax na ko combat bi combat bi wax nga ko sa buntu kër la. sama biir kër sa buntu kër biir Pikine arène nationale. dama ne mu fekk si ma dama koy dóor ma fekk ko dama koy dóor. maa ko laa su ko doon bëree biir kër biir kër booy ñaa biir xuma du ma sa morom biir kër booy ñaa réew dañ koy doo dara du ne tous. dinaa leen a rey yàggul suba la. suba moom yàggatul. yéen ay kaw kaw ngeen. leneen di nga ñëw fi jox ma loxo. a rey bool sa waay yëpp la ñuy sukkee noonu lay sukkee moom mi xaaral ba suba nga xool. ayca umbalaay ñu doxal ba ci kanam xool yeneen gars yi nga xamante ne bii ñooy supporter booy ñaay ak Tapha jëwri ñu ngi lay ziar. fii la be sama waaj ndax yitte yi. Tafatine Boy Niang. ah man nag Tafatine laa sama rakk ji. wuu ñaan saa borom defal nu ndam rek ci ba Sëñ Tuubaa. borom saakaande. waaw ñun dañoo moom saakaande booy ay gune refal lañu. dañ ko defal Boy Niang bu soobee yàlla. mais mais mais Boy Niang nee na il faut mu jox leen kopp fondé. ñu naan bañ loolu ay doom bool bool lañ di béykat doomu séeréer boo ko joxee doom fondé mu naan. dafa day naan ba suur. ba fonde bi du doon fonde bu tàng jër bañ leen a arrangé. ñaare ñaaree popu bu buñ jox ñu naan ko faal dañoo xam cere xam laaxu caaxaan xam laaxu bisaab di wax ji xam laaxu daqaar te xam naa moom xamul laaxu pep laaxu pep xam naa moom xamu ko. waaw parce que nag euh, sport la làmb la Tapha dafa am fu mu am fu mu bëgg a dem. Tapha Tine bu demee bay bëreeg booy ñaar dëgg la làmb la ak i tolof tolof mais wax dëgg yàlla xaj na saa borom ma doxale nii mbiram mais Tapha ñun xooluñu ko fii sax mais xam nga jaam ak pexem yàlla ak dogalam moo tax mu dellu ginnaaw bu fii sax ak ni ko booy amaa boobu daan mais wax dëgg yàlla jàmbaar la sampiyon la Boy ñaar xale la te day ñëw nag dëgg yàlla ñu waxee ci cadre sport yoon la Tapha Tine bëreeg Boy Niang te Tapha Tine bëri na Boy Niang ku muy bëreel. Tapha lan la am ci combat bi. Tapha am na lépp ah mën na bëreeg booy bi comme quoi que mën na xeex ak moom mën nañu bëree ah làmb ji man amul danger ah dëgg yàlla amul danger de. yéen waa kër Tapha daal tiitu lañ ci benn côté. non tiit moom fa yàlla yàlla lañu yaakaar ñu ay bool bool lañu yaakaar ku yàlla ak Serigne Touba ak yonent bi ak Cheikh Ibrahima Fall mi ñu yaakaar moom ñooñu lañu koy bayal rek di ko ñaana saa borom defal ko ndamul seen guy. dëgg tey soo yóbbuwoon Tapha Tine Euh, mu laal dernière bouteille arbitre woo ko desul dara lu dem sëgg ban conseil nga koy jox. non bàyyi ko boppam ah. parce que tey maag yow bu ñu doon xeex tey jii non mënoo ma conseil tey gisuma ko ma mën a conseil loo xam ne tey lu li ma doy na xool ne kat booy bi fi mu toll nii xale la tollu ci buntu dooley xale la yor fitu gune la yor. xale nag neex naa jëflanteel parce que ñoom chaque jour seen deret leen di nax boo maîtriser seen sang rek mën ngaa dox ci ñoom nga toog tey xam nga xool booy bi sëgg bëreeg moom def ko mbër def ko champion. te ma déggee sa wax da nga bëgg a tafaa xaar booy ñaar. non làmb ji ñoom ñaar ñëpp dañuy xaar mais nag daje dina am ñoom ñaar ñëpp booy ñaar xaar tafaa day xaar booy ñaar bu leen damay dal ci ko Tapha Tine day wax lu ko neex Tapha Tine bu leen damay daw dal ci booy ñaar day wax lu ko neex làmb calcul la rek ba keroog ñuy jàppante seen ñaari der nag bu laalantee. kenn ku ne di nga xam woon ne nag xam ne kii liggéey na kii dese na. jaajëf <laughs> jaajëf doom day. <laughs> te c'est voilà jaajëf jëwriñ ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar de dellu ziar. mais man say xeeti weer neex na ma. Eh, waxal waay. barki rës soxla wala mu bàyyi ko nii. non bàyyi bi baax. seen yaa génn. macha allah lépp. keewaa yow booy Sandaga. DMB cosmétique. tey ma ñëw pour wax ak waa Lutte TV wax nañ sama xalaat na man xoolal naa la wax benn affaire de. non Leewtoo ku Leewtoo da ngay lutter après moo tax ma jëm leen Lutte TV moo indi Leewtoo TV Tapha Tine laa bëgg mu daan. Tapha Tine nga bëgg mu daan waaw foo teg loolu. Eh, sama mbër la njool la jantal na am na doole te dafa gëm boppam. tolloon na si période yu difficile. ba gars yi foogoo xam nga ne kii xam nga ne kii waxi rappeur lay wax rek de. ay njool na jantal na. lamb ji day lamb njool na jantal na. ma ne <laughs> non lamb du loolu. saa yi man am na ñoo xam ne bu ñu ma xoolee xam ne lamb laa lay wax dama ne la garab ci kaw lay fekkante boo ñaa ñëw na egsi na doomu dégol bi taalibe Cheikh na Cheikh Saad Bou cappaacoli gi cappaacoli gi non doole ñoo ko doole ñoo ko dàq bëre te noo sut ñun instant bi nii dañoo yónni yàqamte ñu balla ñu tax a jóg dañuy dem jëli balla bu subaa nga xam ne ñu dañuy liggéey pour balla seen diggante ak balla fii lay leere ci tafa leere déggulu ma la lamb bi lamb confirmation la lamb prix dib la boo ñaa day ñëw na ko ne moo ko dàq bëre ah. comprendre nga ah. moo ko moo ko gën a bëtt bëre du boo ñaa tafaatin du benn tafaatin mooy borom saakaande ma ne ngeen yee ko mu ngi da nga dof fan la ni ñëwee araftu sa tafaatin nappa nappaaji ko nii gaa daan ko lool amul te sa waay yéen mënoo la jëri Balla Gaye Balla tafa sax a ah attanugu ko waaw te mooy dama ne wuy ma wuy ma saay dama ne la suba yàggatul bu subaa nga xam ne cappaacul bi ñëw na non doomu dégol day caaxaan eh. ku la jur dégol tafaa ku ko jur bi biir Pikine loolu sax du problème ay biir Pikine la bu nekkoon biir Médina ñu ñëw daan tafaatin ah. waaw luy loolu ah, saa xam nga ne bëre bëre bëre bëre ñun ñëpp xam nañ bëre dama ne la bu dee bëre rek bëre Tapha boo Boy Niang koy lekk ci bëre du benn. mais Tapha Tine gis na mu daanee mbër nu nekk. dama ne la staffu Tapha Tine sax staffu Tapha Tine bu ñu tëddoon nii xam nañ ne suba duñ am lu baax nii nii nii xam nañ ne duñ am lu baax ñoom du benn. lamb dama ne la lamb ci kaw lay fekkante Boy Niang màgg na egsi na li ko Ama def lu ko raw la ko boo Niang def. jaajëf jëwriñ nga la néew. non man kii li muy wax ni man moom xam nga man Balla Gaye laa. mais combat bi combat bi. ñii duñu dara seen kaw la amateur combat bi moom li ma la mën a wax mooy. ñun Balla la xam nga kii nee na Boy Niang nee na Boy Niang dafa màgg. màgg na xale dafa màgg. affaire garab si kaw la waaw mais dama la bëgg a xamal benn affaire bu tafaat bu Boy Niang màggee. waaw tafaatin daf na jar. jar am doole. Ah, encadrement bi ñu waaw fi muy teg suuf dama ne la amaa ko nax amaa ko nax ban encadrement. ah yow day ñëw de. mbëri mbëri nekk si làmb yi kenn ëpp ko ci doole kenn ëpp ko ci vite kenn dàqu ci bëre xam nga lan lañ ko ñaaxoon encadrement bu baax la amul woon te léegi am na encadrement bu maax la def dama lay xamal nga bu jàppee xam ne lépp dëgg. dama lay xamal benn affaire dama ne la dama ne la. billaahi laa lay gëñal amateur buy dem suba stade amateur muy supporter da ngay ñaan yàlla booy ñaar daan Tapha Tine jël bu rëy xam nga la moo tax mooy dundal làmb Tapha Tine bu daanee fu mu jëm. mais mën na jëlee ji kii. ne ma fi la Ama. ban ban Modou Lo Modou Lo dina bëri Ama lu muy doy Tapha Tine tam daan ko bëri dem. revanche lan. Ama tollu ci combat revanche. xanaa xamoo lamb Ama daa toll ci revanche. Ama dafa toll ci daw jël roi des arènes bi dem yoonam. fekk luuri ci kaw daan leen. Eh, Tapha Tine yàlla dafa dogal mu nekk dollar ci lamb. Tapha dollar la day yëg ko wàcc. kii la fi daan barki dem Yékini Junior Yékini Junior la fi daan moo gën a nekk poulain parcelle Yékini Junior il faut comprendre que. mbër bu mag. gars ñee ko jox cër. wuy ma saway saway ñun xam nañ xaalis. dama ne boo demee ci pa bool bool yi di wecci waatee boo leen joxee dollar suba boo demaatee ñu ne la dollar bi wàcc na Tapha Tine genre mbër boobu la da moo la déggoo ma bu subaa nga xam ne cappaaculu bi ñëw na doomu dégol bi egsi na yow dañoo géwél yi ñoo fi nekk fii ñun ñoo fi nekk mbëru géwél yi ñoo fi nekk te nga koo xam na arbitre sifflé mbëru géwél yi Boy ñaa moo fi nekk. Balla Gaye eh, Balla Gaye mooy mbëru mbëri Balla Gaye eh, eh Balla bu ma daanee Tapha mu xam ne du dara. Eh, Balla xam nga Balla Gaye day lekk day lekk ay Modou Lo ki ay Tapha ay ñi muy wax ni Balla Gaye day lekk day wara. Balla Gaye Balla Gaye ba muy dindi Yékini ci làmb Balla Gaye ba muy dindi Yékini ci làmb dañoo xam ne moo koy dindi ndax bugg ko. bo Yékini bëggul Balla Gaye da dindi eh, eh, Balla Gaye moo la gën a xam ne Boy Niang koy dindi ci làmb moo tax du ko neex eh, man làmb laa lay wax làmb laa lay wax dama ne la dama ne la Boy Niang daw làqu lan dañoo moo daw làqu Balla Gaye ne ko eh man ragaluma loolu doomu géeje waay maay gaynde gi ñëw dékku ko dér ko ci làmb ji ñaari ñaari jël loxo dël moo jëlee Balla Boy Niang daan ko jël bu rëy jaajëf. Tapha ak booy ñaa Tapha Tine ma xam ko mu nekk booy boo xamante ne nii xëy na jafe-jafe rek moo ko dàbb ci làmbo mais mën naa xam man naa la wax ay qualité ci moom parce que man Tapha yàgg naa ko suivre ndax man lu mu dee dee làmb xam naa ki dara ndax man làmb dama koy suivre mais nag maa lay xam ne suba la suur si incha allahu rabi Boy Niang jàmbaar la bërekat la ko waa xam nga wax dëgg si yàlla mais Tapha dama lay xamal ne ne wax dëgg yàlla combat bi bari bi nii pirip moom bu bëree ci kattanu yàlla ñu daan ko bu xeexee ñu daan ko parce que Tapha dafa nekk mbër moo am te ne nii xëy na jafe-jafe looy dund ci àdduna yi ngay liggéey ak lu mu mën doon rek jafe-jafe mënul ñàkk mais li ma la xamal Tapha mbër kaamir la te yàlla xam ne nekkut ne dafa ne sama mbok moo tax ma koy défendre. mais mais boo Niang tamit dafa rampé bu agsi kenn xàllalu. non Boy Niang jàmbaar la ndax man dama ne man damay suivre lambo Boy Niang jàmbaar la mën na bëre ndaanaan la ndax booy ñaan ndaanaan moo tax mu jël tafaatin ba war a bëre. mel ni moom moom laa faral 100 pour cent. ndax boo ko yóbbu woon lan nga koy bëreel. sama doomu nijaay la papaam sama nijaay la papaam bi ko jur sama nijaay la mook sama yaay ay doom ay doom baay la ñu yaa may dégg waaw waxuma nag pour xeet wala pour mbokk wala pour leneen mais damaa xam ne tafa qualité yi ma gis moom tafa tamit moom dafa bëri mbapat tafa bëri nag Balla Gaye Stade Assane Diouf bi ñu yàq bëri nañu bëri bu méttee méttee méttee kon donc tafa moom moo am objectif pour nekk mbër Boy Niang moo am objectif bu nekk mbër mais Tapha qualité yi ma gis ci moom yàlla xam na ne bër bi nii prib ci kattanu yàlla jam am ñu am wér bu bëree dina dinañu ko daan jël bu rëy bu xeexee ñu wàcce ko man maa la wax loolu. gis nga xeex ci bër bi. non Tapha xeex gis naa xeex Boy ñaa bu dëggalee boppam dëgg dëggal boppam dëgg nangoo xeex non Boy Niang sax kenn du ko xeexloog Tapha Tine xam lu ñu koy tegal pour am aw malakam ay def ay fay quoi pour jëm ko ndax ay mais Boy Niang boo ko doon boo ko doon tegal sa réer ak Tapha Tine ku ngeen xeex yéen ñaar du moo non jamais waaw du xeex moom man maa la ko du xeex. daw laaxu la daw laaxu. Tafatin boo yal na ko yàlla may ndam. barki yonent bi boo ñaax mbër la mais ndam rek incha allah katafal yi mu liggéey andi na doole andi na lépp macha allah dara desul ñëw daan kese incha allah. boo koy bëreloo. raam tànk wàcc say tànk raam dóor jàpp daan moo fi nekk raam. amul lu lu Boy Niang war a mën def daan Tapha Tine man gëmuma lool li Tapha Tine am ci doole combat bii nii nii raam ci ay tànkam lewaatoo waaj ba ci suuf bañ ko may dara nag du ko may dara. Boy Niang nee ku ko ñaanuma la dara te loo ma jox ma jël. lamb ji amul maye da ngay ba ba keneen nga àgg jëm rek lamb ji da ngay jéem raam raam lewaatoo xool fi ngay jaar kese mbër moom amul looy ñaan ku yaakaar maye ku yaakaar ñu may la ndànk sa bopp Tapha Tine du may Boy Niang dara nag. xeex bu bu metti te ay duma lay doon sax. gis mu daanu Tapha Tine mën na dóor Boy Niang mu daanu. Ah Boy Niang call call la yaakaar ci combat bi combat bi amul call call de. fee dafa diis arène nationale. gannus la neexuma entraînement bu baax a baax a baax baax waa Pikine dañ koo yónni nag. entraînement moom fi mu toll nii weesu. waaw maa mais weesu na mais dañ koy wax rek. parce que li mu nii nii nii non gisuma ci lu man daan Tapha Tine non. jaajëf mbër. waaw merci ndam rek incha allah. ci supporters yi loo leen di wax. waa supporters yi ñu ñëw dal jàmm. gunge ko parce que làmb moom dañuy gunge rek dañuy gunge pour taaral bis bi nañ ko gunge xam nga ànd waa Bawol gépp nag di woo Bawol gépp ñëw gunge Tapha Tine yàlla may ko ndam lu sedd guy ci kaw Boy Niang barke yonent bi merci. rek barke Sëñ Bamba Tapha du am dara. dégguma du am dara. xanaa da ngay génn. mooy yow du dara. xanaa gisoo Tapha Tine ni mu toll. Oh, loolu dara combat bu ne ñu ne Tapha Tine loolu mu toll ñu poids lourd jaaxul booy ñaa mu ne dama aay ci poids lourd poids ñu loolu wax rek la day teg ngeen xaaba suba ba ar bi génn si diggante bi Tapha Tine du xeex du bare hmm? du xeex du bëre loolu foo ko teg ci mystique wala fan bëre du mystique du dara ñoo ko ëpp mentalistique dàq ko bëre ñoo ko gën xeex te ëpp doole ah leen doole ñu doole de dégguma li nga wax ëpp ñu doole de ñu bëri nanguwu yow ci loolu non jëm ak doole bokkuñu mais bu ñu pare ngeen doo doole boo ñaa moom moom mënuloo ñooyam Tapha Tine ñëw wàcc ci ay tànkam teg tableau diréw ko topp Boy Niang ngeen am du ngeen est-ce que du ngeen am problème. bëgg neen loolu bëgg neen loolu ñun Tapha Tine champion la bëgg neen loolu mu taxaw dëggal boobu ñu xeex ñun loo leen bëgg mu taxaw dëggal boobu ñu xeex ba ñu doog a bëree. est que du ndëgg sërëx ngeen koy tegal. duñ ko tegal dara dañ koy appliquer mu gis lépp ñëpp gis adduna bi yëpp xam ne ñun champion leen barke alxuraan yi kër yi. ci cappaacoli. bëree ka dëgg ngóob. cay barki alxuraan yi kërim. fils de De Gaulle. bilaay walaay talaay. Tapha Tine du am dara suba. wante cey du dara. kenn du moom. Sakandé dara jëmu jaafi ne rek mee du dara. rendez-vous ci suba incha allah. dimanche. Um, waaw 9 jeex na tàgg place. foo leen toll ci tige jënd ngeen tige wala jënd góolu. pare neen pare lépp jënd neen tige jënd neen suñu lépp ku yéex du am place suba bool boole bu ñu ñëwee du ñu am dara. waaw delloo ziar bu wér. mais yéen dafa mel ni fan si Tapha Tine nii pare ngeen pour suba. waa pare na ñu bu baax billaahi foto ma pare nañu bu baax a baax di pare rek ñaan yàlla saa borom mu may Tapha Tine lu rëy a rëy waaw. mais am ngeen takkusaan bu mag ak Boy Niang. waaw mais sant yàlla Tapha moom yaakaar naa façon takkusaan bu ne bëri na ko loolu du jaaxalu ko Tapha Tine façon mbir bu ne daje na moom ci làmb ji waaw. mais kii xale la nekk ci yoon. waaw mais xale la ci yoon mais Tapha tamit nekkul mag ci làmb ji de yaakaar naa. xale ak xale la booy xool tafaatin yàggul bëre parce que moromam la rek ci làmb waaw ñu ñaan saa borom may ko ndam rek waaw mooy loolu. gis a di wax ne ñun moom ay bawal ba la ñëw fier ci li ñu doon tafaatin mooy suñu. non ñaari doomi bawal la. ñun ñun tafaatin mooy bawal bawal ñun tafaatin lañu jëm moom lañu yaakaar mooy le géant di bawal waaw ñun tafaatin la ñuy fas yéene rek yaa yaa ma gën a xam teel a dem stade mobiliser lu dem duma booy daan ko jël bu rëy waaw. waaw di wax gars yi rek sama mbokku gars yi sama mafia sama gars yëpp ñu teel a ñëw 9h ñu dem stade duy ko mu fees waaw. pare rek mooy loolu ñun Tapha rek la ñu am barke Alxuraan moom la ñu bëgg. combat bi fan la ko mën a yóbbu. combat bi combat bi mooy buntu lambu Tapha Tine booy xool. fooy xool premier combat Tapha Tine li lañ koy def ñun ñun bawal ba mu jógee mu jógee presque daa war a teg lu leer moo tax mu mën a jot leneen ci làmb waaw di ko ñaanal ndam lu kawe kawe njortam barke Alxuraan ñu ngi ci ginnaawam ñun ñëpp bawal bawal yëpp dañoo pare pour combat bi fas dem def différence quoi boo ñaa moom day xaar day xaar affaire bi tax sirip la alias saakaande cey curuxu curuxu waaw curuxu xaar loolu day xaar loolu dafa xeewi cey le la xam ne loolu dafa xeewi loolu day xaar cey càppaa coli gi ñun tafaa la ñu gëm tafaatin ñun ay ey booy ñaa tafaatin la ñu gëm ñun tax sirip ngeen biir Pikine yàlla xam na ne pare nañu foofa baax li tafaatin waa biir Pikine foofu noonu foofu moo baax barke Alxuraan moo baax rendez-vous suba foofu moo baax waaw suba incha allah rek esaat waaw. billaahi pare pare nañu fépp combat bi dañoo jaral billaahi dañuy daan Boy Niang billaahi daan ko jël bu rëy mu yóbbu feneen si lamb roi bi lañ soxla barke yàlla. jaajëf impayé leen. waaw ñëwaat de. ay jëwri ñu ngi lay ziar. waa maa ngi delloo ziar waxee sànq yéen dafa mel ni da ne a teel a def mobilisation bu am doole. waa teere a pare rek xam nga di pare bu baax tamit may xamal booy ñaa ne ko instant yii nii dafa nekkatul cuune boobu mooy loole billaahi ak ñi may seetaan ñëpp xam nañ loolu dafa daa jëkk na dafa jël combat bi au sérieux da koo jël ansi ak ñëpp boo gisee drapo bi rek nga xam ne gars yi pare nañu pour combat bi saakaande raay taa lay wax nii billaahi walaay booy ñaa suuf la ñu koy jëmee. dégguma dana koy yëkkati ba si kaw maa la lii dana koy yëkkati ba si kaw cent pour cent tax sirib laa lay yëgal nii ñun duñu tapé de te suba la ñuy yëngal Pikine suba ah, ku biir Pikine ngeen dem Pikine yëngal Pikine Pikine laar wax ah ku fa teelul ndekki wala nga teelul añ dootoo ko def yéen da nga fajaru dem dañuy du ma la wax parce que affaire bi nag dafa laaj ay surprise quoi te suba lay feeñ si biir géew bi ay surprise yu bëri te suba lay feeñ si biir. suba lay feeñ Tapha instant Boy Niang koo jóg nag sa waay ñu waxante dëgg rek Boy Niang taxu koo jóg quoi. ko tax a jóg. jël bi te tey tey falaaw gars yi ñi des ku ñëw mu waay Tapha lan moo ko manqué si lam ji jàng na boxe jàng na xeex mais ma yëgale leen Boy Niang nen la si Tapha Tine nen la ak xeer quoi. suba te ay man sax tey la bi. bi eh, man tey la. ngi ak euh, benn sportif ba nga xamante ne bii moom tamit dafa bëgg wax ci combat Tapha booy ñaa Niang jëwri ñu ngi lay ziar. waaw delloo bu wér-wér. lépp jàmm. ay sant yàlla bu baax. su ñu jëm ci combat bu rëy diggante tafaatin Tine ak Boy Niang le géant Tapha Tine ak Boy ñaa càppaacoli ji arène nationale. waaw bu neex lay doon de waaw li ñu naan yàlla rek mooy na gaa yi ñëw teel a ñëw jënd bi dugg. waaw te mu mën a am violence waaw mu am violence waaw combat bu neex lay doon mais man moom sama mbër Tapha Tine euh, Boy Niang man Boy Niang laa faral ko Boy Niang moom laa faral waaw. mais champion ngay dajal le ah, dara noonu la Boy Niang tas na fa kenn ku nekk tas na fa ku nekk ah waaw Tapha Tine la tel mais dara de da koy da koy daan. Tapha dafa jël combat bi au sérieux. ñun ñoo a jël au sérieux incha allah Boy Niang da daan. dara parce que entraîné na dugg na fu mu war a dugg def na lépp waaw xale màgg naa ah màgg la comme moom xale màgg na. combat bi lu mu jaral. jamono lu bari daal waaw lu ñu war a def def nañ ko entraîné nañ dem nañ ñëw nañ waaw bu soobee yàlla incha allah dinañ am ndam ci kawam. jaajëf jaajëf.